لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونسق الأمة وكشف الغمة ومع الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فتركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فجزاك الله خيرا ما جزى به النبي الأمة ورسول القوم قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ba bés penc doomu ndey mbokk jullit nii ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu taqoo ragal yàlla ku ñu munti nekk ci di topp li nga xamante ne moom mooy ay ndigalam waaye di moytandiku li nga xamante ne moom mooy ay tereem ndax ci loolu rek la ñu mën a amee teraanga àdduna ak àllaaxira ginnaaw suñu xutba yi paase leeraloon nañu ci wàllu tawhid di wéetal borom bi subhaanahu wa taala ñu leeraloon ni wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduuni yàlla bindul nit ak jinne lu dul ne nañ ko jaamu te jaamu boobu mooy nañ ko wéetal ñu leeraloon suñu kémtalaay kàttan ban taxawaay la nit ki war a taxaw ngir xam ne moom mii kat mu ngi wéetal yàlla biñ ci jógee tamit ñu leeral suñu kémtalaay kàttan li nga xamante ne moom mooy contraire tawhid di bokkaale ñu leeral ci suñu kémtalaay kàttan naka la nit ki taxawee pour mooy tënd ko yenn mbir yi nga xamante ne ba du tàbbi ci li nga xamante ne mooy bokkaale bokkaale boobu nekk mbir boo xamante ne bàkkaar la boo xam ne moo gën a màgg te nit ki su fekkee deewaale na ko mënul texee mënul dugg fi nga xamante ne moom mooy àjjana ci loolu la ñu tànnee tey xutba tey ci même mawduur bi jël loo xamante ne moo ñu concerné ñun en tant que doomu aadama ginnaaw leer nañu ñun nit ak jinne wéetal yàlla moo ñu war ñu tànn nag léegi nag ñun nit lan moo ñu war yàlla suñu borom subhaanahu wa taala wooñu ci anam bu gën a rafet nañu yaa ayyuhal insaan mu wooñu en tant que fàttekat ndax doomu aadama dafay fàtte bu ko neexoon mu ne yaa ayyuhan naas mooy eeyeen nit ñi waaye dafa ne yaa ayyuhal insaan ey yéen ñi nga xamante ne ay fàttekat ngeen mu jublu si ñun ñii doomu aadama mu ne maa garraka bi rabbikal karim ana lan moo la jay ana lan moo fees sa bët ani lan moo la dugg ba tax nga fàtte sa borom sa borom bi nga xamante ne mooy borom bi tedd rabbikal karim sa borom bu tedd bi mu mel ne dañ ko ne ban borom la mu ne allazi mooy borom bi nga xam ne xalaxaka moom moo bind moo la bind yow fàttekat bi ci bind boobu noonu moo waral moom mu nekk borom mu nekk rab ndax moom moo ñu bind ki bindul mënul nekk borom kon ku bind nit ñi mooy borom nit ñi ki bind àdduna bi mooy borom àdduna bi kër gi nga tabax ñu ne la yow yaay rabbul bayt yaay borom kër gi ndax yaa ko tabax waaye ki tabax àdduna bi mooy borom àdduna bi ki bind nit ñi mooy borom nit ñi te mooy Allah mu ne yow doomu aadama bi lan moo la jay ba nga fàtte sa borom borom bi nga xam ne moom moo wét bind la xalaxaka yamu ci fa sawaaka mu bind la ci anam boo xamante ne anam anam bu correct la tey xoola doomu aadama ni ko yàlla bindee defal la ay loxo defal la ay nopp defal la ay tànk defar la ci cër yoo xamante ne fii ay suuratim macha a rakkabat maanaam mu yemale sa cër yépp ñu taxaw tuuti foofu ci xalaxaka xool leen yàlla nu muy préparé doomu aadama balaa bi nga xamante ne mu ngi ñëw di gën a àdduna ku ne woon tey bâtiment bii nii benn ndox boo xamante ne mooy génn ci góor am benn élément bu tuuti boo xam ne ay bët mënu koo gis nii muy spermatozoïde war a dem lënkaloog di jóge ci ndig góor war a dem lënkaloog benn ovule boo xam ne ci jigéen lay bàyyeekoo ñu ne kat lii di génn fii kat moo nar a génnee tey doomu aadama bi nga xam ne mooy tabax bâtiment bi jamono boobu muy génn foofu kuñ ko waxoon du ko gëm yàlla préparé sa ñëw boobu def la nga nekk ci endroit boo xamante ne bu fa nekkul woon doo dund ndax imagine toi rek jëla benn doomu aadama nga tëj ko ci benn néeg rek bàyyi ko fa une semaine rek nga ñëw fe- noo koy fekkee yàlla neuf mois mu bàyyi la ci benn ruq ruq boo xamante ne bu la fa fekkul woon dara mënu la fa fekk yamu ci muy préparer sa ñëw ba jamono bi nga war a ñëwee li nga war a lekk sax daf ko préparer lu jiitu ngay ñëw sa lekk boobu ku fa bën noonu sa sa meew boobu di génn du fa génn leneen moo fay génn deret moo fay génn waaye du meew moo fay génn waaye nga judd rek mu dajji mu ja mu dajji turu bi meew bi na car commencé jolli nga ciy xéewalu yëgoo dara li xew bu àdduna bi doon rajaxoo sax yow yëgoo li yow yëgoo tinoo yow lan moo la intéressé mooy ween bi ngay nàmp rek yàlla préparé la foofu yamu ci mu topp la di la wërsëgal di la wërsëgal ba nga ne jojj taxaw nag léegi am say matuwaay sa xel mat say cër mat nga am doole waaw foofu moom moo yéy na la fàttekat bi ndax da nga fàtte fu mu la jaarale woon yépp tey kooku boo ko laajoon tey jamono bi ngay nàmp fàtte na ko xamul sax laax biñ ko laax biñ ko toggal ci ci ci tuddam xamul sax ni ceeb yi meloon parce que fàtte na ko et pourtant mu ngi doon dund ak fi ko yàlla jaarale yépp ba mu dem nag ba léegi xelam mature na soo ko laajee fi mu jaar yépp fàttali ko wu ci dara moo tax yàlla tuddee ko yaa ayyuhal insaan yow fàttekat bi fàtte nga fi ma la jaarale woon yépp waaye léegi nag dem nga ba reconnaissant xam nga ne indi woo fi sa bopp te sa cër yépp mat na bind naa la ci anam bi gën a rafet fa sawwarakum fa axsana suwarakum yàlla moo bind mais moo ñu bind ci anam bi gën a rafet tey koo fi wax leneen mu mer da ngay dox léegi gis melentaani di dox amaana sax boo leen gis sax joggi seen kaw bu neexoon yàlla mu def la melentaan moom melentaan boobu nekk yow nit di joggi sa kaw bu neexoon yàlla mu def ñu lu koo fi waxoon golo wala mala wala jinax koo ko fi waxoon rek mu gis boppam yàlla bàyyi fi loolu yépp yow def la nit jaarale la fii mu la jaarale kon moo yooyu mu ne la maa gharraka bi rabbikal karim lan moo la jay ba nga fàtte sa borom mu fàttali la fi mu la jaarale yépp allazi xalaxaka fa sawwaaka fa adalaka fii ay suuratin maa shaa rakabak waaye ginnaaw loolu mën a def yépp nag doomu ndey ngallaawaay nañu xam ne yàlla la ñu war a jaamu ñu taxaw taxawaayu lii nga xam ne moom lañ fi xutba woon ci xutba yi paase taxaw fas yéene koo wéetal bañ ko bokkaale ak kenn suñ ko deful nag am na loo xam ne mu ngi ñuy xaar incha allah bu ñu toogee jugaat moom la ñuy yeggali yàlla nañu yàlla may dégg ak topp aquli qawli haza wa astaghfirullaha li wa lakum sa'il muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim ربنا آتنا في الدنيا وصلى الله وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله doomu ndey mbokk jullit ñi ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy sant dëgg-dëgg sant ñu ngi koy sant ci li mu ñu taamu taamu def ñu nekk ay doomu aadama waaye ñu ngi koy sant bi bu ñu tànnee ginnaaw doomu aadama mu def ñu am xel bañ a nekk ci ñi nga xamante ne amuñu xel waaye ñu ngi koy tànn ginnaaw bi mu ñu mayee xel mu def ñu ñu nekk ay jullit ñu ngi koy ñaan ci loolu mu ñu taxawu yépp yàlla nañu yàlla rey ci li nga xamante ne mooy jullit boobu ndax en tant que bind nañu rek ñëw nañu ci àdduna rek mooy wane ne dee mu ngi ñuy xaar te doomu ndey ginnaaw bi ñu yàlla waxee fii mu jaar ak ñun ñëpp ba indil ñu fii ay surati masha arakabat lu mu wax kallaa bal tukazzibuuna bid diin waaye ak loolu yëpp doomu aadama dafa weddi li nga xamante ne mooy bésu pénc te kullu nafsin zaayiqatil mawt nit ki mënul weddi dee parce que moom demagul de waaye gis na ay mbokkam yu dem li ko gën a jege mu ngi dem mu mu xëy di ko gis te ay jour moo doon nekkandoog moom boo moytu sax ñoo doon bokk benn lal bu ñu tëdd nga xëy yàlla ne ko coppet jël yóbbu kon suñu problème nekkul si ñàkk gëm dee waaye lan la ñu weddi mooy yow mit diin li fay xew ëllëg ak jàmm xëy na am nañu ay arnaqueur yoo xam ne ñoo fi nekk dañu arnaqué ñii soxla suñuy poos ñii soxla suñu doole dañu nax ci ëllëg ak jàmm li fay xew dañu garantir ne foofu day yomb te wallahi ku ñu koy yombalal kookoo ñu ko xañ mbir mi jëf jël la loo jëfal sa bopp loolu nga fay fekk loo jëfal sa bopp loolu nga fay fekk moo tax ci fin wu saar bi fo loolu la ko yàlla jeexale fa man yaamal misqaala zarratin xayran yara wa man yaamal misqaala zarratin charran yara ci saar bi nga xamante ne moo nekk ci saaru suuf doomu ndey mbokk jullit ni yàlla bi ni mu ñu bindee amuñu benn droit di weddi àllaaxira ndax ki nga xamante ne moo la bind ci bi nga nekkul woon dara bind la ci toq ndox bu nee dina la dekkalaat loolu nga war koo mën a gëm tey bâtiment bi am na jamono yex existé wul woon suuf kese fi nekk ñu fexe ba defar ko mu nekk bâtiment bu ñu demee dix ans ci kanam mu ràpp suñu wooyee ñu ko defaroon ne leen réparé leen ko yaakaar naa réparé boobu mooy gën a yomb ci ñoom que defar bi nga xam ne ñoo ko defar kon borom bi nga xam ne moo ñu bindoon modèle lañu defar ñu ci anam bi mu gën a rafetee indi ñu te manqué wuñu dara su nee ëllëg ak jàmm dinañu dekkal dañ koy gëm wallahi azim dinañu dekki comme ni nga xamante ne ni noonu la ñuy yeewoo ci nelaw dinañu dee comme ni nga xamante ne noonu la ñuy nelawee kon nañu bàyyi xel li nga xamante mooy bés boobu bu ñu bokk ci ñi koy weddi lan mooy wane ne du lan mooy wane ne ñun ñi bokkuñu ci ñi koy weddi mooy dañuy sóoraale malaaka yi nekk suñuy mbagg kiraaman kaatibiin yamu ci yaalamuuna ma tafaluun ñoom malaaka yi kenn mënu leen koromp kenn mënu leen ger xaaral ma jox la nangam bu ma bindal bàkkaar bi déedéet ñoom fonctionné wuñu noonu comme policier bi lay jàpp ci tali bi wala kenn bu lay contrôlé nga mu ne xaaral ma ger ko xaaral ma wax ko wax bu neex ñoom xamuñu loolu ñoom lu ñu xam mooy jëf gi ñuy jëf ñuy bind ki nekk suñu ndeyjoor moom mooy ki nga xam ne mooy bind suñuy jëf yu baax yi moom du xaar moom boo jëfee rek automatiquement yàlla jox na ko ndigal ci mu xool nan la ko war a fulee yàlla dina ful sa benn jëf bu baax ay fukk dina ko fël ba sept cent dina ko fël ba ay lu romb ay milliers parce que yàlla jox nañ sax ci surut Baqara exemple nu muy fulee say tuyaaba mooy bu fekkee ne comme nga jël benn pepp dugub sam saxal ko ci biir suuf mu génn génn ay mboll yoo xamante ne yu bëri bëri la nga xam ne benn bi rek boo xoolee li fay nekk ci pepp dugub ëpp na li nga xamante ne mooy cent kon yàlla moom mooy ful suñuy tuyaaba noonu la koy waxee wax yoo malaaka bi nga xam ne mooy nekk suñu droite jëf bi ça dépend nu ñu koy jëfee ci baax ak ni yàlla di kontaanee ak nu mu ñu koy fulalee dix wala mu romb dix waaye ki nga xam ne moo nekk côté gauche bi moom mooy bind suñuy bàkkaar te du da ngay def bàkkaar bi léegi rek mu bind déedéet dafay xaar amaana di nga tuub amaana dina tuub ndax inna allaha yaxfiru zunuba jami'an bépp bàkkaar yàlla moo koy jug moo koy jéggale kon yow doomu aadama bul dem ba naagu ne sama bàkkaar bi rëy na ba yàlla du ma jéggal déedéet jàppal ne saa boo tuubee rek yàlla pare na pour jéggal la kon dafa mel ne moom crayon la yor di xaar su ko marqué noonu boo bindee mu boo ab jéggaloo mu effacé ko kañ nag la koy bind dëggantaan nga xam ne bu ko xasee bind dootu ko dindi moom mooy jamono bi nga xamante ne malaakal mootu ñëw na dikkal la xam ne fii léegi dee rek moom moo fi sës foofu nag moom day enregistré li mu jàppoon capté ko te bindu ko woon bind bu leer da koy bind léegi daal di koy validé parce que lan moo tax mooy da nga koo deewaalee te tuuboo ko bu fekkente ne ay bakkaaru ndaw la yàlla mën na la koo jégal fekk bokkaale nekk lu woon ci yow bu dee nag bokkaale moo ci nekk musiba boobu moom yàlla du ko jéggale moom moo ko waxal boppam te kenn la ko njëkkee mooy ki gën ci nit ñi la ko joxoñ ne ko bés boo bokkaale kon massa moom yàlla du jéggal kenn koo xam ne deewaale li nga xam ne mooy bokkaale kon nañu bàyyi xel ci li nga xam ne mooy taxawaay boobu taxawaay boobu noonu bu ñu ñëwee malaaka yi bind ñoom ñooy rendre compte te li ñuy rendre compte mooy li ñu doon bind ñu jël say jëf yooyu daal di koy peser ak li nga xamante ne moom mooy alxuraan suñu jëf yi alxuraan lañ koy comparer yàlla lim la sant yàlla lim la tere ñu xool nag yow lan nga doon jëf ñu comparé ko santaane yi comparé ko ak tere yi kon balance bi dëgg yow mal xiyam mooy téere bii di alxuraan kon nañ ko bàyyiwaat xel nañ ko gëstuwaat xam lan la yàlla namm ci ñun ñu nekk ci lan la ñu tere ñu daal di koy moytandiku ndax loolu moom mooy dëgg ñu ngi koy ñaax suñu bopp di leen ñaax yow mal xiyam bés bu ñu jàkkaarloo ak borom bi nit ki dina wéet ba jàppee ne yàlla moom kese la bind ndax yàlla du bàyyi boobaa misqaala zar yàlla dina ko régler ci benn fukki dërëm boo xam ne temps bi muy def si fukki dërëm bi sax yow dalay yéem yow doomu aadama bi kon nañu régler suñu bopp fii balaa fee di ñëw nañu taxawaat dëgëraatal suñu tànk comme ni ko gars yi baax yi doon ñaanee rabbana afrij alayna sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin yàlla ñu ngi lay ñaan nga dëgëral suñuy tànk yàlla ñu ngi lay ñaan nga defal li nga xamante ne ni moom mooy yombal ci suñun ba nga xamante ne dinañu am muñ boo xamante ne di topp say ndigal waaye dinañ am muñ di moytu li nga xamante ne ni moom mooy li ñu tere waaye ñu ngi lay ñaan yàlla nga musal ñu ci li nga xam ne mooy yéeféer gi loolu yomb na yàlla yàlla ñu ko yàlla defaral rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasanatan wa qina azaban naar rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا ربنا اغفر لنا ولوالدي وارحمهم كما ربياني صغيرا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الاحياء والاموات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله